salaamaaleykum chers internautes salaamaaleykum yéen ñu safoo programme Senub TV Senub point com ñi ngi fii digg Médina Médina la nekk seet si tey benn doomu Médina bu tudd Pape Chérif Ndiaye Pape Chérif Ndiaye nekk doomu Médina boo xam ne ne mi ngi football actuellement fii di Adana Demirspor sa Turquie Shanghai la jóge si Chine ñëw en février Adana Demirspor joué douze matchs dugal huit buts yëbbu équipe bi nga xam ne ne mooy Adana Demirspor Ligue Conférence tey moom la ñuy waxtaanal Pape Chérif Ndiaye mooy ganu sama ganu tey Pape Chérif yaa ngi am jàmm. xaar ma jox la sa micro. mais maa ma bàyyi la nga nuyu téléspectateur yi. waaw ñoo ngi ziar ñëpp. di nuyu waa Sene di ziar waa télé internet yi. di ziar waa Médina waa Sénégal. waa àdduna wangal kaw. mais boo xëyee boo xëyee fële bitim réew. di nga dugg Seneweb di xool xew si dëkk bi. daf may dal. <laughs> daf may dal Instagram bi lu nekkee ñëw. Ah. Instagram lu nekkee ñëw. waaw ah. loolu ngeen am ay journaux man déjà du ma seetaan ay journaux. Ah. mais ci Instagram t'as tout. mais tey lan mooy programme bi ñëw nañ seet le Médina. tey luy programme bi. programme bi mooy que yaa ngi Médina gars yëpp a ngi fi dañuy waajal nag benn porte a porte. ma ngeen di waajal benn porte à porte. Mhm. nag mooy ñu instant ñu ngi Médina dañuy xaw a siyaar fii quelques passages après ñu yëg ñaay cokkeen. wàcc midi euh, wàcc rëbës jóge rëbës wàcc Medina jóge Medina jeexalee gël tàppe incha allah. bu ñu jeexalee gël tàppe waxtaan. waaw kese. jaajëf jaajëf rafet na. kon tey loolu la mooy menu bi wax na ko dañuy doxantu def ak moom interview fii lay si euh, Seneweb TV. alhamdulilah li lañ fi am dégg nga mbégte. yow daal lii nga gën a lii nga dekkil daal. non lii moo ñu gën a lu ne. mais mais lu tax nga lu tax nga kole wu si identité Médina bi. fii la parce que fii mooy baal bi ni ma mel ñoom ñoo ma ko def mooy que caractère bi may doxee ci terrain bi di ko wane lépp fii la jógee mooy tali bi mooy daal di ko di tëgg yëpp fii liggéey ñu ngi taxaw ñëpp ñenn ñi ñoo foowandoo ñenn ñi ñoo fubalandoo ñenn ñi mooy que da ngay daje ñoom ci Médina bi di fubalandoo di def lu ne mooy di Azibo tamit pareil def ñu bàyyi gars yi wàcc après ñu buub Thank you. championnat Sénégal jaaruma ci lu bëri benn année rek laa def HLM Garaas mais ay nawetaan ak yooyu yëpp nga dégg baax gars yi dañ ciy nekk mën naa fi la dëgg neex dafa neex dafa neex comme daal ñu dem si beneen nekk secteur Thank you. Papa Chérif mii sama doom la sama lépp la maa ngi yaayam dañu ànd dëpp ba ñu nekkee xale ay 17 ans boobu des moom la ñu amoon yàlla def seeni seen papa takk seen yaay ñuy ànd ànd bu rafet ñii ñëpp seen yaay nekk Koliposto du liggéey suy dem Koliposto man lay bàyyi xale yi ñii ñëpp man lay man lay bàyyi ak ñoom muy Seyid ak Abdou ak Pa mi man maa leen téye ñu ànd ànd bu rafet mosuñu am benn problème ak yaayam ñu nekk nekk bu rafet yàlla def Pa ah, yàlla def nag mu dem ba nekk mag nag dugg si lii ñu koy ñaanal yàlla rek di ko ñaanal yàlla yàlla bàyyi ko si li mu nekk yàlla mu si lu ko jaaxal sama doom la nag sama doomu sa ñoom ñëpp samay doomu xol lañu doom yi ma bëgg nag ndax seen yaay dafa bëggoon jaar naa fu nekk ak seen yaay dama doon toog du ma yor dërëm barka rasulullaay seen yaay ne ma xaaral maa ngi ñëw ñoom liggintil ma man loolu duma ko fàtte ñii nag ñoom samay ay doom la ñu daal même seen yaay sax maa ngi moom bi ñu amee problème bi ñu amee problème bi ñu xulee du ñu wax mais barka ak prendre karim damay wax doom yi muy ajaa seen seen mag mooy mooy mooy seen mag ajaa ñoom ñëpp di leen ñaanal yàlla daal yàlla fal leen jàmm waa Chérif mii loolu laa koy ñaanal yàlla doom ju baax la nag ndax mënoon na woon nekk lu taxawaal def lu ko neex mais defu ko yàlla suturaal nañu di ko ñaanal yàlla lu mu sumb nii yàlla na ci jàmm yàlla bàyyi ko soxnam bàyyi ko euh, njabootam yal na ko yàlla def. am na korite bi paase. nii ngeen defoon ngeen jox mag yi euh, kii euh, lu mu tudd suukar kool kon nag comme benn yéen a ngi nii di dajale di def lu baax yàlla yàlla wàccale lu baax wàccale ngéwél wàccale lu baax waaw ngeen dem ba yéen ñëpp ku nekk am jabal ngeen ba seen yi juddu. ñoon taññe aw leen ci li ngeen coono waaw loolu la ñuy wax xale xale da ngay yàllu fu ñu la mën a seedee te waxuñu doom diw lu mu yàlluwee euh, bàyyiwuñu daal doom diw lu mu yàlluwee daa moo gën a baax man de loolu laa xam waaw ndax noonu laa xam ci suma waajur loolu laa xam moom lay digg toujours suma doom yi

ñu ngi fii Médina boo doon xoolee non mais décor bi rek di ngeen xam ne ne Médina li naan fii la dëkk neexee mais Médina c'est un quartier à part fi nga xam ne ne moom mooy dakaar tey ñu seet si doomu Médina buy tuddu si Chérif Ndiaye Chérif ñu gën ko remarqué si fin de saison bu extraordinaire bi mu def ren ak club bii di Adana sport mu jógee Shanghai ñëw Adana sport dugal huit bi si douze matchs il a été décisif. et yaakaar naa ñëpp bàyyi nañ ko xel tey doomu Medina bi di Chérif Ndiaye la ñu seet si Chérif maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay di la siyaar di siyaar waa Seneweb di siyaar télé internet yi di siyaar gars yi fi toog ñëpp waa Sénégal particulièrement waa Medina Gueule Tapée Rebeuss ñëpp sax. Mhm. waaw di leen jox seen wàccuwaay bu baax. di di ñu jox suñu wàccuwaay bu baax di leen fàttali ne Chérif jaar na club buñ naan Beveren jaar na club bu ñu naan Göztepe nekk Shanghai di chercher boppam ba ren mu ñëw fii di Arena Deni Sport def performance boo xam ne ne CA Sol yëpp lañ koy fàttali 8 bi si 12 matchs si deuxième partie saison la ñëw fële sa Turquie donc mu nekk doomu Sénégal boo xam ne ne ràññee nañ ko tey ñu nar waxtaan ak moom mais déjà Chérif. waaw kan mooy Chérif Ndiaye déjà. waaw Pape Chérif Ndiaye nag ci fu mu bokk nag dafa xaw a bëri. Ah. waaw ndax ñu ngi juddoo Gueule Tapée. Mhm. yaroo Rebeuss. màggee Médina football ñaay jokkeer football tamit yeneen ay HLM Grand waaye ci gàttal daal. Chérif yaa Dakar de. waaw Chérif yaa Dakar. waaw bëri na nag. macha allah foofu yëpp am nañu fa cër nag. Mhm. te fu ñu bu ñu fa rombee du ñu sëgg tamit. Mhm. ndax defuñu fa lu ñaaw donc fekk nañ gaa jàmm ñëpp. waaw foofu la daal doon international récemment donc euh, foofu la mbiri loolu la daal waaw. mbiri noonu la demee. waaw alors balaa ñoo ñëw si parcours bi. Chérif Ndiaye ak football. da nga nekk si famille da nga bokk si famille footballistique wala da nga màgg football nga wala da nga jaar école de football yow football daal seen histoire fan la commencé. waaw bi nag famille bi footballantu la comme man tamit nu ma ci commencé nu ci ma ci débuté. footballantu la rek waaye amu ci woon professionnel wala dara. ma ne ko ay footballantu la. amul woon professionnel wala dara. après nag ci tali bi fii ci tali bi fii la mbiri tàmbalee mhm. ñuy football ci tali dem école football. nekk ndam ci Libaas Diop Bordeaux donc fii Medina beeg plateau bi ñëpp xam nañ ko formé na gars yu bëri. ay mhm. professionnels yu nekk town bi fii wala. plateau Libaas Diop Bordeaux waaw donc ñu ngi de passage. boobu jamono jooju moment jonge presque ñoo fi nekkoon école football yoo xam ne ni jeunes yu bëri ci ñoom lañ doon jaar dem foofu dafa passe temps affaire yooyu am nag lu mu def ci ñun bañ nekkee xale par la suite nag ñu ñibbi si nekk Médina mais jàng bi lañ ko doon focus quoi. Mhm. football bi passe temps la woon rek ci tali bi nii comme fi ñu fekk nii. métti ko fii football game de morning wala ay série penalty yi xaalis xaalis wala ay petit temps affaire yooyu football ak sa grand yi ay meew meew affaire yooyu. Mhm. xam nga rek noonu la nekkee woon gën a focus si jàng bi nag. par la suite nag la gars yi fii xam nga rek am lu ñu gis ci yow. nee la donc foog nga exploiter talent bi nga am lañ demee ñu football mbëti pom nawetaan kada lañ njëkk commencé ñaay coppee dem ba Dibam football fa nawetaan après ñu arrêté dem HLM Grand Yoff defoon fa test benn agent ne ñu kon foog ñu liggéeyaat. Mhm. parce que nekk ñu woon ci sant nekk ñu woon championnat bi. Mhm. fa ñu dem HLM Grand Yoff nekk fa benn une saison. def fa suñu luñ war a def gars yi rek yóbbu la. noonu la demee un an rek lañ ko def jàpp. macha allah gars yi jël la yóbbu la. fa fa fa la yóbbu ñu ñëw si parcours bu proprement dit. alors Chérif mais balaa ñëw si parcours proprement dit changement d' environnement bi nga jógee HLM Grand Yoff ak formation bi lépp ça a été rapide allah ñu yóbbu la ba dëkk la ñu njëkk a yóbbu. Euh, ñu ngi may njëkk yóbbu France. France ok Nantes Nantes. laa njëkk dem ay métti woon na trop waaw dara yomb foon bañ demee foofu moom. Mhm. affaire bi ñoom ñu ngi doon daw 2000 à l'heure ñun ñu ngi doon daw ay 10 pour cent à l'heure pour 10 ay ñoom ñu ngi doon daw ay 2000 parce que ñun lu ñu doon lu ñu foogoon fii ñun ñu ngi entraîné bokkul sax c'est diamétralement opposé après ñu dem foofu def Dijon def Nantes def ay yeneen club dem Portugal Lisbonne affaire yooyu jóge foofu dem Belgique def ay test tamit jaar Zulte war a génn jaar Gent affaire yooyu yooyu yëpp du début bi rek la métti woon mhm. mais yeneen yëpp malentendu moo doon am. Mhm. affaire de genre contrat bi signature bi affaire yooyu looloo doon tax du ñu woon signé. Mhm. bañ demee nag après Amiens fa lañ def benn parcours boo xam ne def nañ ko un mois suñu visa waroon expiré ñu waroon ñibbisi defaraat visa bi pour benn une semaine après delluwaat. ñëw nag mhm. def fi benn sept mois. ñëw fi def fi sept mois def fi benn sept mois. affaire yooyu mais sant suñu borom parce que si sept mois yooyu liggéey naa ci loo xam ne ni tey moo ma tenir nii jusqu'à présent. mais lan moo tax nga toog fi sept mois. waaw dañ ma ne woon damay ñëw pour defar visa une semaine. ma ñëw déggatuma dara waaw ma mhm. ñëw déggatuma dara benn une semaine de semaine un mois ba tey après sama agent ne ma non ay problème papier moo am gars yi mënuñu defar papier yi lii wax laa lee mhm. après man nangu ko rek nekkoon di liggéey bàyyiwuma nag xàddiwuma benn yoon mhm. liggéey lu metti nag après ba ñu delluwaatee après sept mois yi ba ñu delluwaatee fu ñu waroon signé amiant la mais par la suite dañ dem Belgique pour defaat sa test waaw ma ci woon man dama demoon juste noonu juste pour pour la forme xoolaat ndax affaire yaa ngi fa dem def fa deux jours président bi nee ma non dama laa bëgg a donc après si yu baax a a valu nga dem Gostepe. tamit ay saison yu baax a baax. Mm-hmm. mais lan mooy transition bi dem Shanghai. waaw des comme ñuy wax rek <clears throat> dafa am décision boo koy jël day am rapport ak famille bi familiale donc je l'ai pris. avec ma famille dama am soxna am doom moment boobu sama tuutaan mu ngi doog ñëw donc te financièrement lu ñu bëggoon amaguñ ko te maa ngi xool sama héritage doom donc moment bi bu may fubal moom moo tax damay reyante pour def dara loo xam héritage boo xam ne dama ko fay teg pour famille bi gi nag yaatu na mooy ñii ñëpp ak famille bi donc nag ma ne xaar ma dem xool ji leneen loo xam ne nit dinaa ko teg mu nekk sama fondement nga xam ne même kër gi bu daa bu yëngatu dina dëgër fondement bi donc je l'ai pris décision boo xam ne financière la woon. Mhm. financière financièrement. comme li Oscar def rek voilà dem foofu ñu daje fa football def fa saison boo xam ne nii ça va on a été deuxième pas mal tu vois donc métti woon na tamit Chine parce que da nga dem foofu fekk fa moment Covid bi. waaw donc ma def deux mois boo xam ne ni quarantaine dañ ma tëj ci benn néeg génn ma defuma dara. Mhm. ci loo xam ne xaw ma ko woon après ba ma génnee tamit yombul woon pour adapter vie bi lekk beeg lépp. Mhm. yombul woon mais daa ne sacrifice la rek pour benn saison après day jeex donc ci lañ def benn sacrifice ñu amal benn objectif boo xam ne ni pour ñëwaat équipe nationale la donc euh, te ñu dellu nañ Adana def ko na a marqué notre empreinte waaw euh, huit buts en douze matchs. te yow deuxième part saison nga ñëw. waaw voilà au mois de février mois de février nga ñëw douze buts euh, ak euh, neuf ma non neuf huit buts en neuf matchs. permettre Adana Demirspor dem Ligue Conférence. waaw yaakaar naa loolu bokkoon na si seen objectif. waaw yaakaar naa mm-hmm. instant yi sax. Mm-hmm. su ma juumul seen i ñu ngi xool nu ñu jëndee lu ñu jëndee. définitivement. donc maa ngi ko doon gis gars yi ñu ngi ci doon wax. Mm-hmm. mais man dégguma ci dara. déggoo ci dara donc waaw dama nekk vacance donc damay xaw a. yenn programme yu ma am ci laa ci fukki semaine bi. Mhm. peut-être beneen semaine bi waaw mais sinon man amaguma ci écho. amagoo si écho boobu donc gars yi daal li ñuy wax pour parler yooyu. yow. non da leen di rassurer ne y a rien de concret. non y a rien de concret mais ñoom Adana ils sont en position de force. parce que si contrat bi moo ci nekkoon dañ defoon ne ni bu ma dugalee 6 buts dañuy lever option donc je l'ai en 5 ba pare. Mhm. donc euh, loolu. option boobu yéegoon na bu yàgg juste dafa officielogul peut-être. Mhm. xaw ma ne xaw ma lu ñuy xaar après je sais pas on ñu ngi ci vacances ñu naan balaa ñoo ñëw si nooy passé say vacances ñu bëri ñu ngi wax ne championnat Turquie amul niveau moo tax amul crédit bu ñu ba beaucoup de crédit si joueurs yi joué championnat Turquie pour ñu mën leen a sélectionner en équipe nationale. meilleur buteur sénégalais fu mu nekk. championnat Turquie Mbaye Diagne. donc. non mais gars dañu ne niveau ñett ñett professionnel ñett au niveau nga gis. Turquie waaw ñett au niveau. ñett au niveau nga gis. Euh, Turquie bi. Mhm. donc boo ma bëggee ne que. Euh, loolu tamit non non c'est une question que je vous pose. waaye je sais je sais je sais une question mais problème bi mooy que dañoo gëstuwul foofu. dañoo gëstuwul foofu. Mhm. gëstuwuñu ci championnat bi. parce que bu ñu fa gëstoo dëpp man dëpp ba ma nekkee championnat Turquie on a que des top meilleurs buteurs ci sénégalais yëpp donc loolu doonu déedéet foofu kañ foofu la. foofu la donc championnat turquie ñu naan du championnat bu am niveau dañuy dañoo juum foofu la foofu la de mais noo gisee traitement bi ñuy accordé joueurs yu évolué championnat turquie maanaam duñ leen jox crédit comme ni ma la ko doon waxee sànq. waaw peut-être c'était pas c'était pas trop suivi c'était pas trop suivi mais depuis un bon moment championnat la boo xam ne nii c'est vraiment suivi parce que da fay gis maintenant ay joueurs de haut niveau ñoo fay ñëw. joueurs de haut niveau depuis man ba ma fa nekkee nii nii nii je que des joueurs de haut niveau en championnat donc que apporté nañ ko au pas ñun ñu ngi def ay statistiques yoo xam ne ni boo ko seetaanee di nga xam ne ni que lii doonu ko niveau bi moo bas ou autre déedéet ci man man bi la que mu doon man doon fa ñeneen ay Mame Birame Diouf ay mbay Diagne ay Mame Baba Thiam ak ñeneen ak ñeneen donc ñooñu du ñu ku ndaw dañu doon ay joueurs yoo xam ne ni dañu prouver mhm. dañu prouver ay saison yoo xam ne ils ont man gisuma loolu. alors euh, loolu nekk na loo xam ne ne information bi la te mettre nga les points sur les i. et que euh, lan instant yi lan mooy say projet objectif but bi douze matchs Adana Demirspor déwén Turquie. ngay commencer championnat loolu lañ lay ñaanal. Mhm. la coupe d'Afrique est à l'horizon mhm. est-ce que une euh, Chérif dans un petit coin de sa tête mi ngi naan coupe d'Afrique bi foog ma non avec l'équipe nationale du Sénégal. du woon sax Coupe d'Afrique bi mais match amical yii nii la woon mais comme li ñu wax lépp lu jot. mooy bii bu Sénégal benn euh, bi ak Sénégal Brésil. waaw mi ngi woon sa bopp pour ñu. ko sélection la mu dafa mës a nekk sama bopp. chaque fois lépp lu am rek mu ngi woon sama bopp. Mhm. ñu ngi ko doon xaar jotagul nag te lu jot yomb nekkuñu di xëcc bu daggul dikk donc ñu ngi liggéey lu ñu war nekkuñu di wax rek mais dañuy jëf ñu ngi koy jëfee nag te ngi koy gis waaw mais après nag am na décision coach Mhm. dañ koy respecté donc moom mu ngi def ay choix am. Mhm. dañ koy respecté ay choix am yoo xam ne ni que ñi mooy attaquant yi de choisir. Mhm. on le respecte mais que objectif bu ñu am nii ni moment bi marqué suñu empreinte rek si conférence ligue bu ñuy dem nii. ak objectif bi 2024 bi. équipe nationale surtout. jërëjëf euh, ñëw nañ si partie histoire bi wax nañ ko léegi lan wax nga tamit li nga xam ne mooy say challenge en équipe nationale mais yow personnellement Chérif Chérif lan la bëgg a prouver déwén en championnat Turquie. waa dépasser samay limite rek dépasser samay limite à chaque fois que bu ma defee ren huit wala neuf wala dix déwén ma jëm ko dépasser chaque fois loolu moo objectif bi qu'on essaye d'être mieux que la saison passée. Mhm. te incha allah noonu lay demee dinañ ko ko tegee ci wàllum liggéey noonu lay demee après lépp suñu borom a xam. Mhm. waaw. C'est un très bon attaquant il s'appelle Pape Chérif Ndiaye il évolue actuellement à Adana Demirspor fële sa Turquie di leen wax ne il a statistique fin de saison bu fou 12 matchs 8 buts te dañ ko bi ñu koy jëlee Shanghai indi ko Adana Demirspor lii tax ñuy lever option d'achat bi mooy na dugal six buts qu'il en cinq matchs donc je pense que déwén war nañ ko gis Arène Denis Sport et il va nous falloir des land il va il peut jouer en attaquant gauche attaquant de pointe ak attaquant de droite mais Chérif. yaa ngi vacances de. waaw dafa euh, vacance pro nu muy demee. vacance professionnelle <laughs> parce que Arène vacance pro moom boîte la sali la soban la la belle vie vacance. Chérif est-ce que noonu lay vacances oo. ku nekk ak lu koy yëngal rek. ku nekk ak lu lay yëngal. Chérif lu lay yëngal yow. man lii. street bi bi waaw mbedd bi nii xut bi. waaw moom may yëngal bu ma nekkul fii rek sama gàlle la. daw ma boîte man je pense que dama ci doon nekk nag. waaw ndax nekk naa je pense que loolu ma nekk dund ko avant moo tax nii ma dal bu ma bu ma foowul woon moment bi damay dabe te mag buy dabee gën a bon sa dabe day ëpp loxo. Mhm. sa dabe day ëpp loxo mais boo nekkee xale nga toll ci foo. après lii du la jaaxal waaw foo nañ bañ nekkee xale nii nag lan la instant yi nii ay kilifa lañ am nañ njaboot am doom mu bëggee topp soirée yi yooyu yëpp xaju ci dafa am lenn lu ñu teg mooy cin cin boobu nag ñu teg ñu ci nekk di ko toog. temps boo mayoon set. Ah, non j'aime bien ton état d'esprit yi man j'aime ah, yàlla. à soo regarde j'aime bien ton état d'esprit. Ah, c'est moom laa la wax rek fii instant nii man mënu ma fi def dara lu ump gars yi gars leen teew ñu ma li ma ñëw di def cant nii ak. ñëw delloo ci ñoom moo tax damay waajalee cant fi nga toog nii fii lay xewee ci café gi fii. waaw dans deux jours vendredi incha allah. macha allah waaw yaatal ko. moom la gars yi di ñëpp a ñëw kay ñu bëgg. non damay ñëw cant ba. non ñëwal non damay cant si. damay cant si damay cant si incha allah rabbi alors euh, sànq yaa ngi naan xuut bi Medina. waaw sa relation ak Medina dafa mel ni c'est très particulière. waaw mu ngi nii xoolal rek. ñii jëndoo mënoo leen jënd de. waaw mënoo bëri nañ fi de macha allah. mënoo leen jënd de sama gars si taal te li bariwul sax. Mhm. bëriwul sax gars yi dañoo wàccagul rek bëriwul sax mais gars yi mënoo leen jënd de te jënduma leen defuma dara waaw sama ab taalibe rek moo waral lii yëpp parce que ñu fi bari ñu fi toog am nañ seen liggéey yu ñu bàyyi ñëw toog fii am ñoo xam ne dangaa nekkoon booy foo ak ñoom ndaw après dem toog lu yàgg lu mat ay 10 ans affaire yooyu jéeg saa gisoo leen ñëw tey nga ñëw nii ñu romb la nuyu la ñoo taxawal la fi ku ci mel ni ki toog nii rek waaw ku ci mel ni kii toog nii fii bii dañ fi foo bañ nekkee booy raak nañ xeex nañ defandoo nañ ñu ne waaw defandoo nañ ñu ne dañ lay fii boo fi nekkee maintenant bi pour nga doon tapé day métti parce que boo doonee tapé rek da sonn. Mhm. waaw ku ci mel ni comme genre booy yi. mais lan moo forger sa état d'esprit parce que ni ngay gisee àdduna dafa bis dafa dafa dafa dafa bokkul ak li ñeneen ñi di gisee àdduna lecture bi nga am dafa sànq bi nga waxee ba ne dama teg cin. c'est tu vois une personne qui est ambitieuse. lan moo forger sa état d'esprit sa mindset. waaw loolu moom damay ne dama koy sante suñu borom parce que am naa jaar-jaar yoo xam ne ne affaire doo man maa ko dund te mënuma ko raconter xam naa ne loolu moom moo may benn maturité boo xam ne ni dama am gëm-gëm mooy ko bu méttee rek man fa la may gënalee mooy day métti dama xam ne ne am na lu neex luy ñëw lu dàq te bu ñëwee foofu danga koy savourer mais boo loo dugg mu yomb rek. du neex quoi. parce que mm. après bu buy métti doo ko doo xam nu muy demee. Mm. mais début bi mu métti après mu neex moo gën ko début bi mu neex après mu métti. jërë jërë jërëjëf alors euh, ñu ngi lay gërëm di la sant. ñu ngi lay gërëm di la sant si entretien bi ñu toog fii euh, def kook yow que jàpp nañ ne. di nga indil ay satisfaction yu yu baax a baax a baax si li nga xam ne moom mooy euh, Sénégal ak tamit sa koñ mooy Médina. Mhm. mais tamit sa objectif personnel ma bàyyi la nga joxe sa mot de la fin. waaw di di leen di sant ci déplacement bi ngeen def nii parce que mënoon na ñàkk ngeen def ko seen temps la seen lépp lañ jël ngeen ñëw toog fii pour découvrir pour waaw télé euh, télé internet yi gis lépp ñu waxtaan yaatal ci samay mbir sama vie waaw di leen sant bu baax di sant nag gars yi yëpp toog fii déplacement bi. mooy loolu parce que des fois damay gêné wu sax bu ma gisee gars yi di nga leen di déplacé loolu di koñ ak koñ jëlee fii yóbbu fële ñu ciy topp di dem barki Serigne Touba damay ruus sax des fois damay ruus sax damay mooy loolu mais waaw mënu ma leen fay mënu ma leen fay ndax lii jëf yi ñuy jëf nii du doonul loo xam da nga koy jënd déedéet da leen di wan dara ñoom tamit ñu mën leen defal dara mooy da leen nekkal ci naaj bi ñu nekkal ci keer bi kese donc dama leen di dool sant bu baax nag après nag nit rek laa peut-être mën naa wax loo xam ne jumte la wala dara donc bu ci amee rek maa ngi koy tub bu baax di jégal ci char ñëpp nag waaw. dem nañ Medina dem nañ ñaay cokkeer dem nañ rëbës gis nañ li gars yi wax si Pa Chérif Baye Fall le taalibe taalibe dong la leen won moo tax gars yi fu ñuy dem di wax ak ñoom vacances la woon bu Pa euh, Pa di leen fàttali ne doomu Sénégal la nañ ko bàyyi xel déwén nañ ko bàyyiwaat xel ñu leen dox di dajee si beneen entretien.